dikkati naa taaw national day ngay am ci Bamba Fall trajectoire am le quotidien le quotidien ne ma parti socialiste la taxawu gëm sa bopp mujjee ci Benno Bokk Yaakaar kii nag mooy Bamba partout 24 heures yéene kaay ne gannaaw nitu Thiès nitu Medina day daal dinay juddu lan moo ca topp nag nitu fan en tout cas gëm sa bopp moom yóbbu nañ ko daanaka ci sukuraat 24 heures yéene kaay xamal ma ni Kalidou Niass xamle na ni Bamba Fall dafa jël paaka daal di koy jëm dëgg ci digg ginnaaw Bougane Gueye Dany coalition ba nag jëloon ay moyens ya war jàppale Bamba ngir mu am ndam ci élection locale yi Bamba Fall nag boole mandat ba nga xam ne waa gëm sa bopp ñoo ko joxoon ak waa Médina roñ roñeeg moom nip xorondom jébbal ko président Macky sal ne ko yaay buur yéene kaay bi ne ma Bamba Fall day li feeñ rek la la nëbbu dee ëpp foofu ay conseiller Pikine yu gëm sa bopp ak itam ca diwaanu Tëngéej ñoom it daanaka roñ roñu nañ dem ca président lii nag yéene kaay bi duppee ko ab yàkkale politique le mandat xamal ma ne bugaan gay dani day loo ci mënti déggit moom moo daal dina ni jël paaka nag jam ko ci ginnaaw gi conseil yoo xam ni ñi ngi diggante Pikine na yekkug waa Médina l'observateur ne Bamba Fall la a def bam ca nuppee xam nga lum ca tegam sama fuuda saa critique yéen kaay daal di xam le ni Bougane Gueye Dany day ma nga taxaw fa mu taxawoon rek fa mu taxawoon ak yaakaar ga mu amoon ci réew mi ak ñetteelu candidat Macky Sall bañ a foofee ma fa taxaw ba nuppi terewul nag gaa yaa ngi jam ca ginnaaw Bamba Fall bàyyi na ko war ko dem ca Macky fukki conseiller ca diwaanu Pikine war nañ ko ay conseiller ak itam maire ca diwaanu Rufisque bëgg koo war dem ci président Macky Sall grand place ne laaj bi samp mooy ndax président Macky Sall waa waajul de Bougane Gueye ndax gannaaw Bamba Fall Daawur Ñaa Njaay mi nga xam ni moom la àndaloon ànd nag fukki conseil yu gëm sa bopp dem ca Benno Bokk Yaakaar maire bu Rufisque Ouest Alioune Mar xamle na ni boo moytul dana bàyyeekoo gëm sa bopp dem fekk Ismaïla Madior Fall ak Seydou Diouf Alioune Mar ne waxtaane nañu ville bu Rufisque waaye waxuñu waxu dem ci Benno Bokk Yaakaar laaj bi samp moom moo di lan moo tax dëgg-dëgg président Macky Sall te gëtam ci gëm sa bopp direct news ne xanaa xamu leen ni moom président Macky Sall day la waykat wane woon bu ma wiisee damay jam moom Macky Sall mi ngi jam te boo moytul du rote bugaan en tout cas président Macky Sall guuxal na ko maire goo xam ne daanaka dogot dogotee ak coalition dong la ci Bamba Fall moom ca Medina ba xam ni Benno Bokk Yaakaar dañ ko fa bëggoon génnee daxe ko fa foofee la daal dina leen ñëw leen yéenay sama waay ànd ak ñoom président Macky Sall def ko fa ab ministre conseiller moom Bamba Fall direct news ne ma ba tey jëfu gii tax na ba ay militant am ca lu ñuy wax gàcceeng leen di bëgg bëgg faat ak yaakaar gu yankeeku yéeni kaay bi ne moo tax bugaan war a xam ni président Macky Sall dëgg-dëgg su bëggee dafay foqati du tàggoo tribune ne ko président Macky Sall it war na am ay njàngale yoo xam ne war na ko am ci élection locale yi ak yeneen élection yoo xam ne am na ci réew mi ndax itam képp koo xam ni ab transhumant nga askan wi joxoon na sax manda nga dem jébbal manda ba président Macky Sall bu élection ñëwaatee gaay a sanctionné nan la yéeni kaayub dee média bi ne ma président Macky Sall laataa muy jël Bamba Fall waroon naa laaj Idrissa Seck ak ñamu àndal laataa muy jël Bamba Fall waroon naa laaj Moussa Assi ak ñamu àndal moom président Macky Sall laataa mu doon négocier ak Bamba Fall ko def ministre conseiller xam ne ko jox kañ bëggul Macky nag tribune ne ma jébbal neexal gu duun Bamba Fall fàtte nag ña day wotee luñ ko yéen kaay bi dee média bi ne ma loo ci mënti dégg war gi daal sakkan lool ndax ca Pikine daawur ñaa njaay ci boppam moo dem détourné ay conseil yu gëm sa bopp las yéen kaay ne ma élection yii yu législative yee gën a dàq yëpp ña ngi koy waajal nag ndax nag révision exceptionnelle bi yéen bi ne ma dina am juróom-ñaari fan ci weeru mars l'évidence yéen kaay ne ma ca gent kaay arrondissement bu paw Paoskoto foofu day maire bu yes ba moo moytul nguuram du yàgg ndax dañoo gis ne ab casier judiciaire la am vox populi daal di may xamal ne njàng meeg njàngale mi day mi ngi ci kir crise waaye nag inspecteur d'académie bu Guédiawaye ma ngay xamal ne tiitaange daal jamono ji waraguñu gànna seen ne ñoom technicien yi am na nañu xaranteef daal di dabu lépp loo xam ne ndongo yi nañ koo ñàkk ndax jamono ji nga xam ne gréew yi ñi ngi am ñi nag soobu ci situation boo xam ni même bu gréew bi continuer njàngale mi daañu xool nes ko d'abord Sud Quotidien ne ma société civile bi day ma ngay àddu ci li nga xam ne am na diggante gouvernement ak syndicat jàngalekat yi ñoom société civile nag xamal ñaari parti yi ndongo yi dañoo war a jàng tey dañoo war def kémtalaay kattan ba njàng mi wéy ci réew mi aane ma Mamadou Talla mi nga xam ne day moo yor njàng meeg njàngale mi daal dinay addu ci crise bi xam leen ni dibeer gii war nañu dajeeg jàngalekat yi te boo moytuwul ab déggoo dina am ci seenu biir laas ko di yéene buñ paree ci njàng meeg njàngale mi nañu wax ci ak jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund entreprise su bëri ci réew mi ñu ngi sukuraat ci réew mii xiif lekk nekk fi doom bu góor jafe-jafe yi am ci biir kër yi ci diggante facture waaye tam lu ñu dundee le solo yéene kaay ne président de la république ak nguuram ñaar day taxaw ci seenu kanam benn bi mooy teggi taxi yi waaye beneen option bi la njëkk yi Dakar Times ne booba day ci diggante Afrique ak France ña ngay négocier l'observateur ne moo ne day diggante Mali ak Sénégal boo maytul day juboo léegi mu am ca ndax Macky Sall ak Assimi Goïta wax nañu ci téléphone libération yéeni kaay ne ma mënoo daaneel te waxoo ñaawteef gi nga xam ne fekk nan waa jii ñu def ko ko ca wotoom ca Cambérène ndongo gay lay wuyoo ab bijoutier la loxo yi la ñu jël takk ca gannaaw jël tànk yi daal di takk sol ci saaku faat yéeni kaay bi ne fukki fan ak juróom ci weeru février la réeroon ak tey te ndongo mii dañoo jël ay mbir yoo xam ne ni nuroo na paaka daanaka jamate ko ci yaram bi yépp daal di dem ba ci sies ci ginnaaw ci wotoom tëral ko fa ndànk yéeni bi dama waa ji sant caam te mu yore loon ko xaalis mi ngi ci loxol yoon ndax moo mujj wax ak moom lu ci mënti am bu leen fàtte ni ndongo gëy mi ngi bàyyi ci ginnaaw njaboot goo xam ni moo leen yoroon bàyyi ci ginnaaw it ab doom di tànk bàyyi ci ginnaaw it soxna soo xam ne dafa wannu lor lu ci mënti am bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat yendu leen ak jàmm CAN féminine vingt 2022 Sénégal dina jàkkaarloog Mali sa Thiès. waaw kon nag tey la door nag lu jëm ci wàllum nag dañuy tour ale jëm ci wàllum éliminatoire euh, Coupe d'Afrique des Nations bi ñu jagleel wàllum jigéen ñi ñu fas yéene ko amal foofu ca Maroc ci at mi ñu nekk kon na jàppal tey Sénégal tey jig ci ngoon. bu 16h30 jotee dina ci laale ak euh, Mali foofu nag ca stade bu la jox lay doon ci leeral ak yeneen jongante yi ñu ànd ci ak euh, Soxna Fall. tey ci àllarba ji la ñuy door match aller wu deuxième ak dernier tour éliminatoire CAN féminine bu 2022 mu des fukki place yu ñu war a jël ndax Maroc mooy dalal xew mi moom dafa qualifié d'office Ouganda mi profitoowu ci forfait Kenya ñoom am nañ assurance ne dinañu participer ci phase finale bi ñu jàpp ñaari fan ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juillet atum 2022 bi ci royaume chérifien bi ci noonu derbi di dox ci diggante Sénégal ak Mali moo tax ma Moussa Cissé ak ak goneem yi war a benn avance ngir am yaakaar mën a jongante coupe d'Afrique boobee ci noonee dañoo war a wane xar kanam gu dal xel ci match aller biile yeneen i jongante tam jàpp nañu ko mu jël ñetti yoon bile trophée Nigéria moom gannaaw ba mu écarté Ghana ci tour ba la ñu génn ñu war a daje ak Côte d'Ivoire Algérie mi làppoon làpp yu metti Soudan fukk ak ñeent ci zéro moom tey jile ko mag ci wàllu Afrique ci wàllu foot féminin la war a dajeel muy Afrique du Sud ci noonu ak Guinée équatoriale Cameroun war a dalal Gambie Gabon moom ak Togo lay doon Burkina Faso war ci xëcco ak Guinée Bissau na Fall kon Sénégal tey ji nag ci ngoon lay fas yéene ak ñi wali wàlli waa Mali bu 16 h foofu ci stade bu Lat Dior lay doon waaye nag mbébitu gaynde ak Sénégal yu jigéen yi mooy nag def seen kéem kattan ngir nag gagné euh, équipe bu Mali fii balaa nag ñu amal match retour bi foofu ca Bamako. ki ñaar fukki fan ak ñaar ci weerum février gi ñu nekk nii en tout cas lu ci mënti am daal ndawut nag Mame Moussa Cissé ñoom mën nañ nag compter ci yenn ci expatriés yi nga xam ne ñoo ngi fubal foofu ca Europe ku ci mel ni Meta Camara Safietou Sagna ak Ngenar ñaay nekk foofu ca Bourges 18 euh, ca France Mame Diop ca Lens Astou di euh, football foofu ca Cherbourg ak euh, kii di Ndeye Awa Diakhaté nekk sa Le kon équipe nationale football bu Sénégal nag objectif am mooy def kim kattanam ba naka qualifié waat ci coupe d'Afrique bu ñu jagleel wàllum jigéen ñi gannaaw fukki at bam ci mujjee dem kon nag yeneen jongante yi kon tey ji 13h Burundi dina ci laale ak Djibouti Zambie ak bi lay doon 15h30 Guinée Bissau moo ci dalal ñii di waa Burkina Faso. ñu waxtaanee jaraaf bu Dakar AS Pikine quatrième journée bi jaraaf dafa lajj si jongante bi ba noppi ñu teg ko daanu 1 million. waaw xam nga naka commission. bu discipline bu ligue sénégalaise bu football nag ni ki démb la génne ab communiqué ngir nag euh, sanctionné euh, kii di jaraaf bu ndakaaru ndaxte ñeenteelu bëccëg bi boobu la jogante nag gannaaw ba jaraaf mu ne woon ñii di waa AS Pikine waaye nag balaa match bi di jeex waa Pikine dañoo amoon penalty yi en tout cas supporters yi jàpp ne loolu du penalty ba mag match bi mujjee am nag euh, ay nag jaxasoo kon tax na ba nag euh, ligue bi amande benn million la daan euh, kii di jaraaf bu ndakaaru ba pare nag artu ay dirigeant am AS Pikine moom nag cent mille francs lañ kon match retour bi sax yaa ñaari équipe ñu fas yéene ko amal foofu ca stade bu Alassane ci nag huis la ñu koy amale bu ñu sukkandikoo ci ligue bi di fàttali nag ni boobu la jongante kon ci quatre-vingt-huitième minute la ñu euh, dakkaloon foofu ci stade bu Iba Mar Diop ligue bi nag di artu bu baax a baax dirigeant yu jaraaf ci mbir mi nu mel di fàttali nag que lu jëm ci wàllum fukkee lu bëccëg bi nga xam ne dinañ ko amal niki ci week-end bi kon ëllëg bu 10h30 jotee foofu ci siège bu ligue bi ñoom yi jagleel ko nag ñaari équipe yi waa Guédiawaye FC bi nga xam ne ñoo fas yéene laale di fàttali nag ni jaraaf waxtu wi kon moo nekk si ñeenteelu place bi am fukki poñ ak juróom euh, nekk ñaareelu place bi boobu bu 16h30 jotee foofu ci stade PSG dafa mujjee doo Real Madrid. waaw démb kon nag euh, ci nag dernière minute yi ci la nag Paris Saint-Germain mujjee am ndam ci kaw Real bu Madrid benn ball ci dara bit bi nag ko dugal di Kylian Mbappé kon ñu jàpp na sax euh, kii nag di Paris Saint-Germain amoon na sax penalty ci soixante-deuxième minute de jeu bi waaye nag euh, kii di Lionel Messi. da ko mujjee raté mu nar nekk nag jogante goo xam ne retour bi kon dina neex loolu foofu nag te Santiago Bernabéu ndaxte Real Madrid. dina nag def kéem kattanam ngir nag mën a renverser lu jëm ci wàllum nag boobu le résultat retour bi sax dinañ ko amal ni kii nag euh, juróom-ñeenti fan ci weeru mars waaye nag euh, Real Madrid moom euh, di nag am ñaari manquant yoo xam ne nag bokk na ci équipe joueur clé yi muy ku ci mel ni Casemiro ci milieu terrain bi ak Mendy ci latéral gauche bi finaliste malheureux bi nag di édition bi ñu weesu di Manchester City moom démb dafa daan daanaka sporting bu Portugal juróomi bal ci dara kon mun na jàpp ne sax Manchester gën na jege nag lu jëm ci wàllum quart de finale yi huitième de finale li sax tey jii nag la ñu koy wëyal ci ngoon vingt heures Salzbourg mooy dalal ñii di waa Bayern Munich Inter bu Milan ak Liverpool bu ñoom Sadio Mané la yeneen jongante huitième de finale yi kon dinañ ko amal ni ki nag mardi prochain vingt deux février ci diggante Chelsea bi nga xam ne moo yor raaya gi ak mooy dalal ñii di waa Juventus bu mercredi 23 février Atlético Madrid ak Manchester United la Benfica moo ci laale ak Ajax bu Amsterdam kon Mambay li moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaar